tewul dëgg jàmm du mësa am kon boog bu dëgg amee nañu waxante dëgg ji te dee loolu la olof yi wax noo wax dëgg ji de tee loolu fi des nañ waxante dëgg consulat yi nañ leen bàyyi sekk ñu dara ak politique bi ñuy dox ñun consulat yi nañ leen bàyyi sénégalais yëpp lañ fa nekkal consulat yi nañ leen bàyyi parce que ku yeewu suba dem sa consulat consulat yi nañ leen bàyyi parce que ku deele ñu jox la kayit pour nga delloo si sa néew consulat yi nañ leen bàyyi ku jur sa doom nga dem fa consulat yi nañ leen bàyyi ku bëgg tukki nga dem fa consulat yi nañ leen bàyyi parce que bu consulat amul tukki àddina tukki nañ bàyyi consulat yi et puis man moi je refuse une chose bàyyi leen di privatiser diaspora diaspora kenn moomu ko ñun ñëpp waa diaspora lañu il faut arrêter de privatiser la diaspora ñun de la diaspora ñun de la waa ñun nag ñun nag bokkuñu ñun on de la diaspora li ñu def diaspora li ñu def diaspora j'ai mis au quelqu'un d'autre de dire ici qu'il l'a fait nañ ko wax donc il faut arrêter ça c'est sur le vandalisme c'est comme ça que je l'appelle c'est sur le vandalisme des consulats du Sénégal à l'étranger. On est le seul pays qui a manifesté, dont les fils ont manifesté et dont les fils ont cassé les immeubles à l'étranger. On le seul pays man gisuma ko fenn ku am beneen image nga war ma ko ku am beneen image nga wax ma ko gisuma ko fenn ah, oh honorable Ibrahima yoo maa ngi ñëw oh non honorable Ibrahima man maa ngi ñëw si moom sax j'ai j'ai j'ai merci merci honorable député man je suis métier wax def maa ñor parce que parce ñu may fay ci laay teddee moo tax képp kuy wax dinaa la déglu ba nga teeral mais su ma lay tontu bëgg naa nga déglu ma parce que loolu respe la donc Ibrahima honorable député Ibrahima Diop c'est à vous que je voulais en venir en me rappelant ce que j'avais dit dans ce fameux amphithéâtre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis mais leçon yi ngi si jàng bariwul de yi nga jàng fii am na loo xam ne maa wax mais waxewu ko woon foofu de donc defe naa war ngaa delluwaat université man sama bopp ma demaat université ñu defaat leçon bi encore nga gën parce que parce que parce que parce que nag parce que nag j'ai toujours la fierté quand je viens ici on me dit maître vous aviez di ceci vous aviez dit cela ça me remplit de fierté parce que ça veut dire que li may wax ndeke am na luy des ci bopp nit ñi mais li fay des nag damay bëgg lu leer doon ci tuuti la lu leer rek na fay des li si des ñu fàtte ko li leer li mooy effectivement j'avais dit à l'université de Gaston Berger que en faisant une métaphore kooku c'est les Grecs qui disaient ça qu'il y avait un ogre qui mettait au monde ses enfants et qui les mangeait alors qui est l'ogre et qui sont les enfants qui est l'ogre

À l'époque, quand je parlais de l'ogre, le président Macky et moi-même, on se battait dans l'opposition contre le pouvoir. À l'époque, quand je parlais de l'ogre, nous étions nous les enfants et vous avec moi les enfants. À l'époque, l'ogre, ça ne pouvait pas être Macky À l'époque, même si les enfants c'était nous, l'ogre ce n'était pas Macky Alors, si vous devez maintenant faire la métaphore, faites la métaphore à bon escient, ne la sortez pas de son cadre, ne la sortez pas de son contexte. Alors l'autre leçon, l'autre c'est Ismaïla Diallo. L'autre leçon, c'est Ismaïla Diallo. Moi, je suis fière que vous venez répéter ici ce que j'avais dit. Ismaïla Diallo me répète une leçon où j'avais comparu à TFM, wana TFM warno, Mamoudi Ibrakan warno. wona fonene haqqillimade siftoro eyyi ɗaccude jaaboma donc à l' époque mamoudou ibra kane m'avait dit est ce que vous vous êtes une révoltée je lui ai répondu quand dire la vérité c'est se révolter oui je suis une révoltée quand défendre mon pays c'est se révolter oui je suis une révoltée quand seulement refuser l'injustice c'est se aujourd'hui ce matin Ismaïla Diallo honorable député, je ne suis pas révoltée, mais je suis indignée. Je suis indignée car la violence gagne mon pays. Je suis indignée car ce sont des Sénégalais qui lèvent des armes contre d'autres Sénégalais. Je suis indignée car un député ici à cette tribune-là, dit voilà quelles sont les armes au Sénégal, les mitraillettes, les ceci, les calibres. Depuis quand on a ce débat de violence au Sénégal Depuis quand on se permet à l'Assemblée nationale de parler de la typologie des armes Voilà ce qui m'indigne. Je suis indignée. Quand dans le livre blanc, comme on l'a dit, en 2021, qu'on se détrompe. Il y a eu un livre blanc en 2021. Mais ceux-là qui ne l'ont pas lu, ils n'ont jamais lu quoi que ce soit. Ce livre blanc non plus, ils ne l'ont pas lu. S'ils l'avaient lu, ils auraient compris ce qu'il y a dedans. S'ils l'avaient lu, ils auraient compris que de façon rationnelle, méthodique, on a exposé les faits. Les faits, c'est quoi On a voulu attenter à la sécurité du Sénégal. Les faits, c'est quoi On a voulu couper l'électricité. Les faits, c'est coupé l'eau. L'effet, c'est quoi On a attaqué des policiers, on les a traînés dans la rue. L'effet, c'est quoi C'est la violence, et la violence, la violence. Arrêtons-nous, regardons-nous en face et faisons la paix, rien que la paix, que chacun prêche pour sa chapelle et que la démocratie triomphe au Sénégal. Voilà la vérité et voilà ce qu'il y a dans ce livre blanc et pas autre chose qu'on est venu raconter. Monsieur le Président, je vous remercie.